état rôle ci liggéey bi rôle facilitateur la état jëndul xar état jaayul moo tax aussi mënul wax ci prix mënul wax ci qualité mais li mu man ba man mooy dina def kéemtulaay kàttanam pour sensibiliser ñi nga xam ne ñoo jënd ñu xam qualité yi mu indi mais aussi ñu am yërmande par rapport ak ñi ñuy jaay période bi ñu nekk période bu jafe kenn ku ne xam na kon il faut kenn ku ne mu xam ne ni yërmande def war a am li nga xam ne dañ koy def am na yu ñu soulevé fi tout ci wàllu ñi nga xam ne ñooy ñëw fii loolu waxtaan nag ak monsieur le maire mu ngi jël ay dispositions yu am solo pour loolu moom bañ a amati donc mënuñu lu dul rafetlu li nga xam ne fekk nañ ko benn daaw a J moins onze région bi soo limoon lim bi mu ngi toll ci dix-huit ministères Rennes, même période, c'est-à-dire à J-11 de la Tabaski, nous avons 28 000 têtes. Lorsque si on fait la différence, maintenant, nous avons 10 000 têtes. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait la différence maintenir la tendance qui descend. Si on veille la Tabasco, nous avons une autre chose à Nous avons un bon approvisionnement. kon mënuñu lu dul sant yàlla ci loolu te ñaan yàlla tendance yi continue beneen aspect bi am na ku ko fi wax léegi mooy am na ay réew yoo xam ne fii la ñëw di jënd fii xar mu ngi mel ne Gambie wala Guinée Bissau ñooñu nag yàlla def na ay réew la yoo xam ne yàlla def dañu am ay relation yu séculaire moo tax lépp lu ñu mën a jàppalante te du gaañ Sénégal dañu koy jàppalante moo tax également may conseiller ñi nga xam ne consommateurs sénégalais yi képp ku ko yàlla mën loo nga am nga nekk dans les dispositions financières nga nekk dans les dispositions organisationnelles nga fexe sa kémt lay kattan nga télé a jënd sa denc parce que ben période bi ñu nekk période feebar la bëgguñu nit ñi dajaloo bu mu upp déjà ni ñu def ni dara baaxu ci li ñu wax mooy que lu mu néew néew kenn ku ne na may keneen ki un mètre loolu dafa baax ñu koy jàllale parce que période bi ñu nekk la moo ko laaj beneen aspect bi à une semaine su ñëpp jënd ci wala ñu bari dem jëndi c'est sûr et certain que ne fin bi nit ñi duñ dajaloo ci marché yi di ci tàncaloo parce que nag fu ay junni nit di dajaloo kenn su ci feebaree ragal naa feebar mën naa yaatu te loolu kenn ku ne ci ñun responsabilité am la kenn ku ne ci ñun war na cee taxaw kémtu lay kàttanam loolu euh, appel bu ñuy lancé jëmale ko ci euh, consommateur yi beneen aspect bi aussi nee naa leen que ne Gambie am na ñu fii ñëw di jënd xar di yóbbu gambi kon suñu gaawul xar yi nga xam ne mu ngi fii toog ay nit ñooy ñëw jël ko yóbbu kon na nit ñi génn ku ko yàlla mën loo bien sûr j'insiste na nga ñëw jënd de ce fait suñu demee ba fin bi ñu sentir que ne lii nii kat narul jëm kër mooy xar nar naa manqué danañ am temps pour ne ñu ne nañu dolli ji mais su dul loolu suñu bay à deux jours de l'événement xar su fi jeexee milliard soo ko joxee promoteur danaa ne ma fenn parce que c'est risqué donc li ma bëgg mooy kenn ku ne ci yéen xam ne li ñuy def da ci am wall da ci am cër